laay laaj euh, Mame Mbaye ku nekk benn question lan ngay conseiller ñun sénégalais ñu nga xam ne ñu ngi fii te ngeen di doomi réew mi nekk bitim réew ci coronavirus bi am nga xamante ni mbas bu metti mi et njiitu réew mi ak ki nga xam ne moo yore wàllu wér-gu-yaram bi di le ab Abdoulaye Diouf Sarr de liggéey liggéey bu am solo moom ñu mu àndal ñëpp di ñaan yàlla yàlla gën a dooleel jàppale nu et ban euh, conseil nga leen di jox pour ñu mën a toog seen kër ak nu ñuy contact communauté relève mo upp manam ki lay wala yow doko xam taxamo fu ni jogé ban message ngeen di jallalé ñu mëna tej wa ko ko dal euh, ibrahim laaj bu am solo la ya ayyuhal ladzina atiu llaha wa atiu rasulahu uli al-amri minkum Fale mhm. ni yalla ak ndawam ak ni mengo seni ndax corps médical ci walu wér gu yaram ñoo méng suñu mbir mhm. bu ñu ñu waxee ne na ngeen tëj jàkk ji mhm. ndax confrontation bañ a am mhm. nañu ne norme d'hygiène yi matul ci jàkk ji prévention sanitaire yi matul booba dañu war a topp itam seeni consigne ndax loolu ci dégg diine la bokk ndax di dund ñu yor wàllu àddina bu ñu masaan a joxe ndigal def na antum aalamu minni bi umuri dunia seen compétence yéena ma gën a xam seen àddina dëgg la julli ndax seen alimaamu jox nañu julli waaw ndax ba ñu tere ay waa këram ci jumaay Dakar xam mm. ñoom ba ñu sangoo seen dere deret mm. limaamu def leen jox julli ñeenti rakk mu ne rakk bu ne na ngeen ci julli fatiha isa jaa benn yoon fatiha isa jaa ak suratul ixlaas ak ñaar ixlaas ñaata yoon Euh, vingt cinq mu ne nga jullee ko comme ni ngay jullee tisbaar mu ne boo ko defee ci yor yoru ajjima wala bu xatee ceew nga def ko bu laata tàkkusaan <laughs> mu ne fu jàmm yàlla jullee jumaa ci àddina yàlla dana la jox yoon jërëjëf Papa Laye lan mooy sa message waaw Paa Ibrahima man dañuy dañuy tënk ci li oustaz wax rek te wax dëgg yàlla ñun ñi nga xamante ni ñun la yàlla dogal ñu nekk fi mm-hmm. ah wax fa dëgg yàlla ni ki ñëpp a xame ni nga xam ne ñoo nekk bitim réew yar bi nga xamante ni am nañ ko ak discipline bi loolu daal la dénk ku mu doon rek xam ne mbir mi comme ni ñu ko waxee li ci gën am solo mooy topp ordre yi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite loolu la ñu wax ñu jëfe ko ndaxte li oustaz wax léegi muy lu am solo li ñuy tere nit ñi ak li ñu leen di digal yëpp pour rek sàmmonte ak seen wér-gu-yaram kasa la mhm. tey balaa lii di xew kii mhm. di ministre de la santé wala ku mu doon mhm. ordu yi ñu joxe joxewuñ ko woon kon nanu xool lan moo tax ñuy joxe ndigal yi ñu joxe ak tere yi ñu tere nit ñi lan moo tax ñu tere leen ba loolu rek la nit ñi di xool xam ne bu fekkoon ni yàlla deful feebar wàcc kon yii ñu tere kenn du ko tere yii digle kenn du ko ndax Sénégal man damay wax chaque fois ne li nu war jàngal nit ñi du dara lu dul discipline mhm. waaw discipline rek lañ war jàngal nit ñi ku nekk nag yaa war yar sa bopp xam ni lii gouvernement bi bëgg ma sàmb ma demba mhm. ñun ñoo ko war njëkk a gën a bëggal suñu bopp ndax nag wér gi yaram ñoom li ñuy sonn yëpp yàgg-yàgg ñun lay jariñ ndax kalaa jaamu yàlla faaw nga wér gëm yàlla gu dëgër fexe wér ba noppi doog a mën a jaamu yàlla mënoo jaamu yàlla loolu dal lañ won woon nañ ko. wa anglais anglais nan lay waxe restez chez vous anglais restez chez vous. <laughs> stay at home. okay stay at home kon mam bay yow yaa ngi stay at home yow ban message ngay joxe. jërëjëf Seydi Ibrahima di len jaajëfal bu baax di ñaan ngeen yàgg lool tamit sama chef. tey sama ñaari chef laa feggool sama chef Ibrahima ak sama chef euh, Papa waaye di ñaanal suñu waajur suñu sëriñ Oustaz Baytir Nourou Mahdi Média set yal na yàlla gën a dolli ndimbal waaye di gën a wax rek euh, euh, di féliciter ministre ministre de la santé di ko ñaanal yàlla te di ko wax fi mu teg tànkam aussi même su lii amul nanu gën a taxaw taxawaay boobu mooy dimbali jaamu yàlla yi toujours li ñu leen dénk yaakaar leen fi ñu dimbali ci nit ñi nit ñi aussi ñu dégg ci nag ñu gën a sellal ngir ñu mën a mucc ci balaa yi comme ni ko oustaz waxee ci waxtaan bi allahumma salli ala sayyidina muhammad oustaz ma joxaat la trois minutes lan nga nuy baaxee balaa maa tëj waaw oh, man day xanaa di leen sant di leen gërëm di waaw ndax li bi ngeen di def ci seen yéen a ngi dimmali diine ji ah, yéen waa média set yal na yàlla def addina ñepp amiin yaa rabbal aalamiin li ñu wax bi ñoom la nangu ëpp li ñëpp ñoom itam yal na yàlla fay leen amiin yaa rabbal aalamiin waaye maa ngi nit ñi daal waajal ci Seydina Isa ndax tampon bi cent vingt ba deux mille vingt cent ans la dama koy def ak naaj yi wala dama koy wala ma bàyyi ko ci sama loxo secrétaire ma demba rek mu daal di ma orienté wasalaamu aleykum jërëjëf asante yaa Seydi mbokki jullit yi comme ni ngeen ko gisee ah, seen émission bi fii lan koy ndar keppe spécialement di leen jox rendez-vous incha allah ci koor gi ki nekkoon ci régime bi mooy lamine ak njànku ma nekk ci këram di liggéey à distance Ibrahim ibrahima lay mbeng bu média set tv mbokkey pap ibrahima jong mu yoroon kaddu gi di ñaanal baye abdoulaye yàlla fi ak gën a ak mbolof ak mbayti alu julin ñëpp di gërëm mu baax sas bay tiir ca new york ca amérique papa lay ca amérique ca chicago ma mbay ca europe ca luxembourg man pap ibrahima jong ma di leen jox dig daje wassalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu